mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi barab bii de ku fàttaliku tuuti juróom-ñaari at ci gannaaw taxawoon nañ fi di laaj ndax Touba yeyoo na ay rond-point yoo xam ne kenn xamul lu muy nuróol mbokk yi ñu abandonné ko sàggane ko te mu nekk ci ñaari sëlëbe yoon yi nga xam ne kuy dugg ci dëkk bi fii ngay jaar ku jëm jumaa yi Sëriñ Tuubaa Séex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul mu ngi nii fii ngay jaar boo génnee jëm Jolof fii ngay jaar boo génnee jëm Fuuta fi ngay jaar waaye mbokk yi bu weesoo loolu yëpp nag ndax dëkk bi ñi amee responsabilité taxawu dëkk bi ak mbedd Sëriñ tubaa yi xam nañ responsabilité bi ñu yor jamono jooju kat ndax incompétence la wala ignorance la bokk waaw gis ngeen rond yi nga xam ne moo am ci dëkk yi nga xam ne ñoom yëg nañ ne barab la boo xam ne barab bu taaru la war a doon te laaju lu bari bokk yi waaw fii ñaata koppar lañ ci def bokk yi liggéey bi ku ko garanti gis ngeen ne GDO sax neewoon nañ def nañ ko fi waaw gis ngeen niñ ko abandonné sàggane ko ndox mi di fi taa yematu ca ba verte yematu ko ba ñiis yematu ca xool ngeen salte bi nekk fii mbokk yi ci xarkan bu dëkk bi a deux pas de la grande mosquée de Touba mbokk yi waaye Champs-Élysées de xam ngeen ne suñ barab bii war na ko dax am mbedd rek la de ndax ñoom dañ ñoo gën a fonk seen dëkk ndax da ñoo gën a bëgg seen dëkk waaw ndax lii du saggante mbokk yi xool leen c'est sans commentaire mbokk yi fii may wax ak yéen commune bu Touba bi nga xam ne moo am responsabilité taxaw mbedd yi ba tali yi du am suuf ba mbedd yi set moo defar lii te xam ngeen ne Serigne Touba yooyu lii ndax boo demee bay liggéeyal Serigne Touba da nga war a xool li gën Serigne Touba am na njëgam njabootu Serigne Touba gi am na njëgam te mbokk yi moo ne biñ fi taxawee taxaw ca point ba nekk ca booru mairie ba taxaw fii taxaw fële ca hôpitalu Serigne Saliou ba di laaj ndax Touba yeeyoo na lii jóg nañ jël ay koppar yu bëri def ko fi waaye ndax am na suivi ndax am na entretien ndax lañu fi def méngoo na ak liñ fi war a def mbokk yi te tey di ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre deux mille vingt-quatre fii may wax ak mairie bu Touba mu ngi ci am juróom benn milliards yoo xam ne ni daf koy dañ ci jëmale ko déwén bopp waaw xanaa du alalu sëriñ Touba waaw jàpp ngeen ne ñun rond yi nga xam ne moo xew ci jamono taaru lool yanj lool te du indi benn jafe-jafe ci circulation bi waaw ndax ñun dañ koo mënta am ndax dañ koo yeyewul ndax dañ ñu ko yéenewul damay laaj rek mbokk yi nañ seet li gën ñu defal ko sëriñ bi te bu ñu ko defee nañu koy saytu ndax lii kat du lenn lu dul saggante ndax kenn ci ñoom boo demee seen kër doo fa fekk lu mel nii ku doon liggéeyal sa bopp it doo liggéeyal sa bopp lu mel nii kon kuy defar Serigne Touba ak dëkk bu sell bii di tubaa nga xam ne moom la gën a fonk da war a seet li gën nga def ko nañ defar mbedd yi nañ defar rond yi nañu ko yanjal nañ ko taaral ngir jëmmi Serigne Bamba mbokk yi am nañ ko mën nañ ko lu xew mbokk yi